tabarkal la baatu muuru koor bi ëpp na xeeb waaw lu ne dañ koy teg ci aada dañ ko teg ci xaqiqa waaw booy joxe muuru koor bi baa ngay joxe sarax bi dangay mel ni yaa yëg ni ki ngay jox yaa ko gën te bu ko nanguwul rekk ngaal ko du joxe gi moo lay libéré ki koy nangu nangu ko moo lay libéré ndax xud min amwalihim sadaqatan tutahiruhum wa tuzakkihim biha waaw moo tax sax di joxe sarax sa loxo tiim loxo ki ngay jox xaram na parce que loxom mooy aliyada al ulia sa bos mooy aliyada sufla ndax bu nangoo sa bos rek yàlla nangu na الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبه عن عباده وياخذ الصدقات وتبلا نيت كي تالل ديجل لوخ يالا تالل تسا بوس منول جنا كاوي بو يد الله فوق ايديهم وتبوي سرخ ديل باي تلل سا لوخ كي جيل بسام تيم سا بوس ndax yalla ndax mooy ramz bi waaw tax ku mel ni Sayyidatna Aïcha bu daan jël mbubb di ko jox nit sax dana ko suur parfumé ko daj lu ne parce que ni bale ci nit kee jot yàlla jot ci ba noppi moo tax lu ne xam lan mooy dëgëreem dafa baax waaw ëpp na xeeb waaw